ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb komba bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone gannaaw yof fa dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène junior mi ta ndaw ñi xamante ne nii moom mooy Kalmu Ndour Kolbu Zap dina fa jàkkaarloo ak Pape Double dina fa jàkkaarloo ak Pape Yekini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye fu ak buusit te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci lutte tv point com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey lundi 5 juillet 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak borom Loro Thiès Sagata ak fan sax Bambey. waaw Sénégal. Bambey moom Moussa faa dem xanaa. yow yaa gis fu ma demul fu dul Kolda ak ak ak Kolda dëggu Mansour Kassé demaguma fa. demaguma Kédougou demaguma Casamance. Tamba. Tamba demagu fa côté boobu laa demagul. Tamba de ni tàngee. ah mais yow man gaynde nga ni man gaynde laa wedduma tere xare. ah waaj bu ñu ataaya sax ñuy taal ay gaz nañ ko teg rek ci kii bi. ñu ngi nuyu ñëpp nga ni. gars dañuy toog rek Omar Diop ñu ngi nuyu ñuy suivre le TV point com yëpp fu waay mën a nekk si àdduna bi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen di nuyu waa Vice FM ba ca Gambie seen auditeurs yëpp ñu leen nuyu bu baax di nuyu doomu ndeyam Abdou Darame di nuyu waa Gambie yëpp. am na solo Lamine di nuyu waa Gambie yëpp ñu ubbee ko nag tey ak journal bii di les arènes. mu daal di ñëw ak ñun nag ci xew-xew bu rëy bi am ci arène nationale démb. diggante xale la woon ak mag Gris 2 doon bëre ak Abdou Diouf mi nga xamante ne nii ay at ci ginnaaw daanoon nag magam. Mhm. Gris doo mhm. mu ñëw bëre ci fulla ci fayda am ndam lu rëy rëy loo xamante ni am na ko ci kaw Abdou Diouf démb. waaw journal les arènes moom moo xëy fësal rek daan bi nga xamante ni Gris 2 daan na ko Abdou Diouf ba mu jaaxaan wan ñu Gris 2 tamit muy muy muy muy jóg ca suuf sa yëkkati ay loxoom di waaj a daw zibile ji wala boog di dem ci arbitre bi pour mu yëkkati li nga xamante ne moom moo di mu mel ni victoire bi nga xamante ne am na ko ci kanamu Abdou Diouf dafa mel ni loolu relancé na li nga xamante ne moom mooy carrière am gannaaw bu ma defee huit combat def huit victoire neuvième combat mu seqoon ko ak Reug Reug ñàkk combat ba dixième combat am bu bëri na ko mun Gris 2 instant bi am na ca ndam def neuf komba wala boog def dix combats neuf victoire benn defet relancé ci carrière am ci cinquante huit secondes. am na solo Lamine nee nañu champion balaa ngoo xam mu jógee ci defet di ñëwaat. bu ko neexoon démb mënoon na ñëw taxaw ne day def round round d' observation benn cinq minutes mais mayul bëre bi temps dafoo ñëw bëre bale xale dem yoonam. moo tax Amadou Kati Diop mi nga xamante ne moom mooy coach sam moom ko toogaloon ci ci kaw ki nga xamante ne moom mooy Abdou Diouf lu dul arbitre ciblé mu xool ko appliqué li nga xamante ne moom lañ ko jox mu appliqué ko à la lettre bu ko defee nag yàlla dina ko ci may ndam moo tax yàlla may na ko ci ndam waaye ku nekk am ko la toogaloon ci siège ndax Arouna Sall mi nga xamante ne moom ak Abdou Diouf ñoo bokk benn yaay moom tamit wax na ci yéen a ci yàbbi. yéen a ca yàbbi ndaxte jàpp na ne Abdou Diouf Lamine ni mu bëree waru warutoon a bëre noonu parce que nag làmb dafa am nuñ koy bëriwee dafa am ay stratégie yoo xamante ne waroon na ko teg pour janoog Gris 2 waaw pour janoo ak ki nga xamante ne moom mooy Gris waaye erreur bu amul comme ni ko Jules Balde waxoon rek làmb yëpp a xew daal manager tamit ñëwoon nañ fa waaye ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers numéro 2 ak ne moom mooy Gris Bordeaux tamit teewoon nañ fa ñoom ñaar ku ci nekk am nga loo yëy yàbbi jëmale ko ci moo ki nga xamante ne moom moo di Gris rakk yi yaakaar naa ne nekk na loo xamante ne lu am solo la gis nañ ko ci open press bi mu def lu nu mel ñëw ci làmb ji gën koo fësal. Mm-hmm. yëngal tuus bi ba pare. Mm-hmm. gis nañu mu actif trop trop trop ci côté rakk ji. Mm-hmm. nekk na koo xamante ne daal attaché wu na trop ci magam. waaw waaw waaw parce que boo xool bi ma ko bi ma ko bi ma koy bi ma koy jël sax moom Gris Bordeaux ci ci ci ci cumikaay bi bi mu wax moom da insisté na Maodo sama rakk la waaye tamit sama xarit la waaye tamit sama xarit la loolu yëpp wax na ko ay yoonu yoonu yoonu yoon moo waral nag nu ñuy wax rek mbokk ndey koy jur. mbokku ndey koy jur ñu nekk ñaar ñoo xamante ne dañ leen di ñaanal suñu borom may leen jàmm mm-hmm. gën a seen diggante ndaxte diggante mag la ak rakk joo xamante ne ni diggante gu am solo la mm-hmm. Boy Naar biñ doon gis ci écurie Fass nee na nag Gaston Mbengue ak Balla Gaye numéro 2 ñi ngi préparé retouram ci làmb ji waaw moom nag wax na la nga xamante ne noonu la ko Gaston ak Balla Gaye numéro 2 di waajale moo tax instant bi man maa ngi gis statut mi moom Boy Nar léegi nag mi ngi dem ci saali parce que def na foofu ay at gisuma ko woon benn yoon muy statut ay lu dul ndawal rek laa ko doon gis mu koy statut instant bii nag moom Boy Nar dafa mel ni bëgg naa ñëw signé retour am te nee na Gaston Mbengue ak ki nga xamante ne moom moo di Balla Gaye numéro 2 ñu ngi ciy liggéey ak moom bu baax a baax a baax a baax nekk na koo xamante ne ni moom ci làmb Lamine ñu bare bare bari bëggoon ñu di gis Boy Naar muy bëre parce que xorom si mhm. ak caaj gi nga xamante ne ni amoon na ko suñu làmb daal di ñëwaat ak ñun ci ni nga ko waxee woon démb ci biir stade bi ni woon doole doxul jàmm mhm. moom it mu ñëwaat ci rek ba wane nataal gi nga xamante ne ni moom la Gris 2 plaqué wee Abdou Diouf ba jaaxaanal ko tëdd ci kawam tëdd ci kaw moo tax journal sunu lamb ci xalima ki nga xamante ne moom moo di Iba Kane ndax yaakaar naa ni démb moom moo fa teewaloon li nga xamante ne ñoom ñooy waa wala Abdoulaye Dieye sax moo def moo def moo def moo def Iba Kane wala Abdoulaye Dembale waaw ah, Abdoulaye Iba Kane la Iba Kane la moom moo def li nga xamante ne moom moo di article bi wan nañu Gris Bordeaux Gris wan ñu lan coulisse yi nga xamante ne jotoon na fa am waaye wax nañu tamit Gris Bordeaux mi nga xamante ne moom mooy magam yëngal na bu baax a baax démb amateur yi Liss Ndiago phénomène la boo xamante ne nañ ko bàyyi xel waaye daal nee na wax ji mu gudd mu gàtt mooy doole doxul jàmm. doole doxul jàmm la mel ndax yaakaar naa ne xale la boo xamante ne nii ni mu ko doon waxee ci signature yi la ko defee ne woon na ko man maay xale. wax ji wóoruma bu arbitre bi sifflé nga xam ne man maay xale te won na ko ne moom mooy xale ci stade Iba am na lu fa xewoon diggante Mame la borom top 5 ak mbay guy gi waaye nag fi mu toll nii Lamine mbay guy gi moo ko yóbbu. doole doxul jàmm boobu Omar Diop moo moo tax moo tax journal sunu làmb ñëwaat ci guy gi ak mbay guy gi ak ki nga xamante ne moom mooy Mame Balla rek doole la fa wane moo ko ëpp doole moo tax jour combat ba mu yàggee ba yàgg mu yéene ba kaw dóor ci suuf. yaakaar naa ne nekk na lu am solo ci samedi bi itamit Lamine xew-xew amoon na ci wàllu làmb mhm. ndax euh, général bu Fass bëre woon na ak ki nga xamante ne mooy qualifié numéro 2 daal di am ndam ci kawam par avertissement ci décision arbitrale stade Iba Mar itamit amoon na làmb ci diggante kii Ndongo ak Cheikh ci wàllum làmb moo tax moom mooy journal sunu làmb rek de waaye général moom nee instant bi yooyu muy wax moom talu ko lim tal daal mooy Malick Niang na may li nga moom mooy sansam yaakaar naa ne nekk na am solo ki nga xamante ne am na confiance bu baax ba pare bëri bu assuré lay bëree moom mm. bombardier le B52 de Mbour moo tax mu ne bombardier plus dangereux que jamais waaw loolu daal ak lu mën a xew forme ba nga xamante ne instant bi moom lay affiché confiance bi ak assurance bi nga xamante ne gis nañ ko ci Bombardier journal sunu lamb daal moo tax moom instant moom jàpp bu bu mag a mag a a mag a mag la te lu muy gën a dem rek Abdoulaye Dembélé nee na Bombardier di gën a dangereux ak lu mën a xew daal le 31 juillet yaakaar naa la war a laale ak ki nga moom moo di Balla Gaye numéro 2 dañu yónni yàgg ba xam fan la am na solo lamb la boo xamante ne ba mu jeexee polémique yu bari na pare naa ak parewu ma damaa feebar ak feebaruma bii nag yaakaar na ñu wér-gu-yaram dina ci am te loolu la ñuy ñaan bu ñu tàkkalikoo polémique bañ a bëri mm-hmm. Sambay mi nga xamante ne nii moom moo tëggoon lamb général ak Coly Faye tamit journal bi fësal na ko journal bi fësal na ko di wax ni Sambay dafa démissionné ci association bi nga xamante ni moom mooy association promoteur bi nga xamante ni bokkoon na ci waaye lu mu jàpp daal ba waral mu démissionné nee na diñ ko soutenir daal maanaam bariwul soutenir peu soutenu par ses collègues. Hmm. promoteurs. maanaam ni ñu ko jàppalee moo doyul. waaw moo doyul moo tax ne moom Samba daal nee na génn na ci association boobu noonu déci moom nag moom moo décidé génn ci association bu waaye nag dañuy xaar ndax day bokk ci beneen association wala day continuer nekk Sambay production kese kese kese kese. ak lu mën a xew daal nañ yónni yàgg mu mel la ak lu mën a xew rek nañ koy def ci jàmm ak salaam parce ñoo bokk seen ndey ñoo bokk seen baay. ba pare ñoo bokk lu ñu bëgg bu dee dañ ñëpp ay promoteur dañu yaakaar naa ne ñoo nga làmm moom moo leen ñor mm-hmm. kon nañu xool naka la koy jéem a waxtaanee naka la koy jéem a rafetalee mu gën a nice mm-hmm. mu nekk lu jëmale làmb kanam mm-hmm. Lac de Guiers kan la war a bëreel Lamine kan la war a bëreel moom Lac Mbaye Sène mooy tànnal boppam Lac de Guiers numéro yaakaar naa ne moom mooy tànnal boppam ndax démb laaj naa ko nee na nag instant bi yàkkamtiwul dara day xaar carte gi daal di tas bu ko defee mu jël ci adversaire yi waaye journal sunu lamb daal moom xëy na samp laaj boobu noonu ak lu mën a xew saa kajoor tamit andi na ay leeral ginnaaw ba nga xamante ni ay maanaam ay mbir jogoon na ci réseaux sociaux yi maanaam ñu leen wax rek ñu gën a vigilant ci côté yu mel noonu ay information boo koy génnee surtout information maanaam euh, euh, maanaam faatu ñàkkum bakkan maanaam boo koy wax rek Omar Diop na mu nekk na nekk loo xamante ne leer na la naññ naññ naññ naññ naññ nga koy soog wax ndax teel a publier te publier lu dul dëgg yaakaar naa ne amul solo te day tax nga gën a ñàkk sa crédibilité nu ñu ko waxee crédibilité. waaw crédibilité crédibilité. Ah, crédit. <laughs> xamoon naa ne crédit nga ciy yokk rek. Ah. sa peer a ngi nii ci biir journal bi itamit moom Sambay moom moo ko doon décoré père Gora fi ma waroon a jeexale fi ma doon jeexale moom daal moom nee na mi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax moom Sa Cadior saa Cadior rassure waaw yàlla na nga gën a dund mbër yàlla na nga gën a wér lépp lu la yóbbu ca bitim réew suñu borom yombalal loxo mm-hmm. nga ñibbi si jàmm ki ñàkkoon bakkanam doonoon mbër di Jules Balde junior am na un an bi mu ñàkkee bakkanam ak léegi itamit yàlla na ko suñu borom dolli yërmande. amiin incha allahu rabbi 4 juillet 2020 la génnoon àdduna ba 4 juillet mu defagum un an ci biir suuf yàlla na yàlla yeesal yërmandeem rek ci kawam moom ak mboolemu jullit incha allahu rabbi waaw. te yéexeñu comme ni ma la ko waxee sànq sa père la Sam Fall daal di décorer père góor. def na lu ko war yaakaar naa ne père góor ku ko ku ko ku ko décorer rek yaakaar naa ne tey presse bi yëpp nga décorer ndax yàgg na ci làmb di suñu papa yaakaar naa ne photo na ku ne ancien gloire yi ba mujj muy photo ay doomam ak ay sëtam yàlla na yàgg photo ndax bëgg làmb rek moom moo ko dugal ci lii nii waaye nekkul dara loo xamante ne tey dafa ciy gagné kon nag Sam bu ko décorer dañ koy ñaanal te di ko remercier ci loolu bu baax a baax baax. am na solo Balla Gaye numéro 2 tamit mi ngi entraîné bu baax a baax a baax. ci lépp loo xamante ni wàllu lutte la lutte pure moo xam lutte gréco-romaine judo MMA lépp mi ngi koy waajal. waaw sport de combat daal Omar Diop boo koy def da ngay bañ a bàyyi dara dara dara surtout làmb wax booy xool làmb maanaam lépp lu sport de combat rek booy xool daanaka daje na ci li nga xamante ne moom mooy suñu làmb ji moo tax journal suñu làmb ñëw ci ni Balla Gaye 2 s'entraîne en lutte libre et MMA. boo seetloo combat Moustapha Guèye ak Balla Bèye wala Moustapha Guèye ak Lac de Guiers bu rëy boobu mu ko daanoon. Hmm. bëriwul sax lu ñu koy gis ci làmb ci lutte ci lutte ci lutte avec frappe. dëgg la moo tax daal ak lu ñu mën a xaw daal boo ci nekkee rek dañ ci nekk bu baax a baax a baax. Moussa ak Zos nag nekk na làmb joo xamante ne nii ñu ngi koy jéem a dox ndax combat boo xamante ne nii ñoom ñaar mën na leen relancer. waaw kan moo ci war a relancer wu moom la Iba Kane xëy boobu noonu mu diggante Moussa Ndoye ak Zos mu mel ni amateur daal instant bi ñu ngi waxtaane boobu la combat te promoteur yi dafa mel ni intéressé wu nañ ci nañ yoon yàgg daal ba xam combat boobu dana taxaw ak bu taxawee fan lay mujjee bu taxawee fan lay mujjee yaakaar naa ni leeral yi loolu rek la woon. waaw leer la noonu la woon ñu ngi nuy ñuy suivre luttetv.com yëpp foo ay mën a nekk si àdduna bi ñu ngi leen nuyu bu baax cat ba cat di leen ziare di nuyu waa groupe Lutte TV ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax baax démb tey moom la ma fa gis ci ay ci ay ci ay ci ay euh, message bari na lool lool gaa yaa ngi werante bada bu Faas bada bu Serigne Ndiaye moo fa dugg yëngal groupe ba góor gi Ndiaye ñu ngi koy nuyu di nuyu tuuti yaay Sarr Omzo bu Garga Serigne Ndiour bu Osod ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñooy commentaire ñu ngi leen di gis Cheikh Bass Kër Massar Pape Demba ñu ngi koy bëgg bu baax a baax waaye nag du ñu fàtte ki nga xamante ne mooy suñu yaay Adja Gaz borom Angleterre yaayu liiru jaan ñu ngi koy bëgg lu bare bare bare waa Grand Dakar waa Loora ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu tamit mu Ndiaye patron liiru jaan directeur Série Madeleine maa ngi lay bëgg bu baax a baax di la ziare di nuyu ki nga xamante ne moom mooy moom mooy ñoom ñoom ñoom ñoom Afia mafia liiru jaan boobu rek ñoom Afia ñoom Mafal waaye Mansour Kassé bu Modou xarañ loo borom Kolda maa ngi lay bëgg lu baree baree bëri di jox ñëpp rendez suba incha allahu rabbi